gis ngeen gis nga monsieur le maire mu ngi noonu eh, Khalifa Sall ngi noonu Barthélémy Diaz ma nga noonu ci otoom mais dafa mel ni accordé wuñu pour waxtaan ak ñi nga ni presse bi defuñu benn déclaration ñu ngi noonu di dem gis nga oto bu bi ak bu gris bi ngi di dem ñu ngi noonu defuñu benn déclaration waxuñu dara. Hmm? Khalifa Sall ak ki nga xamante ne mooy maire Barthélémy Diaz euh, ñoom ñaar ku ci nekk Khalifa Sall moo yor président moo yor oto bu weex boobu Barthélémy moo yor bu gris bi mais mbokk yi ñu ngi noonu génn nañ mais ñoom ñaar ku ci nekk. kenn deful benn déclaration ñëw nañ ci ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko ànd ak moom ci li nga xamante ni ci la dëgmal mu lay wan ni rek Sénégal saa su boo nekkee ci njàqare wala tiis da ngay gis say mbokk say njagañaale say xarit say am di jàmm ñépp ñëw taxawu ñu ngi noonu ñoom ñaar gis nga oto yi waaye déewante na ñoom ñaar président ki nga xamante ni mooy xalifa Sall ak le monsieur le maire Barthélémy Diaz ñu ngi noonu ñu ngi noonu oto baa ngi noonu di dévier Ya euh, ñu ngi dem ça gis nga len nonu mbok yi ñu ngi waat fi batay euh, ñu ngi buntu keur président Ousmane Sonko il est 19h04 waaye batay ñu ngi tatane rek lepp lo xamantani xew na fi dinañ len ko dektal yeen suñu mbok internet yu wasare yi euh, ndax ñu ngi fi taxaw gis nga garde corps yaangi nonu militant yaangi ngi ñepp ngi nonu taxaw. voilà mbokki internetu wasaare TV ñu ngi leen di nuyu di jaajëfal Baye Djily mi nekkoon ci reportage bi boobee ba léegi euh, d'ailleurs mu ngi fole sax ci buntu kër Ousmane Sonko di xool ba xam ndax dina am lenn lu fa ruusani ñun nag ñu ngi ñëw campé fii di xool ba xam ndax dina am yeneen i autorité yu jege ci côté yi. Euh, ñëw def si euh, du may doxum ñaxtu sax waaye seet ci seen mbokk mbokk ci wàllu politique bokk ci wàllu ci réew mi aussi ndax gis nañ fi sànq bu ci mel ni monsieur le maire Khalifa Sall euh, ñëw gi nga xam ne ñëw na fi ci biir kër gi gis nañ fi aussi Barthélémy Dias euh, nga xam ne ñoom ñëpp ñu ngi fi euh, yeneen i yoo xam ne nii fekkuñu leen fi wala fekk nañ ñu ñëw ba dem ndax gis nañ fi ku ci mel ni Assane Diouf ñëwoon na fi xaw na fa yàgg sax ba dégg nañ. lenn ci suñuy confrères yi benn information bu ñuy joxe à ce que euh, dafa am benn blessure ci ci ci bopp donc euh, loolu jot na fi xew euh, am na ñeneen ñoo xamante ne aussi ñëw nañu fii dañuy seen oto rek wàcc am ku dugg génnaat duggaat ci oto dem parce que période boobu noonu force de l'ordre yi na nañu kër gi te dàq nañu lépp luy presse ngir mu dem donc loolu moom moo taxoon amuñu woon une vision nette du kër gi ba xam lan moo fi xew gis ngeen kii ngeen di gis nii en noir euh, blouson bu noir yi mooy doomu suñu yaay Nafi Ngom Keïta euh, ndeysaan euh, otoom gis ngeen moom lañu laal noonu ci ginnaaw ba yàq li nga xam ne moom mooy devanture bi mu nekk lu metti nag nekk loo xam ne nii tey Euh, du fi goulet ndax bari nay auto yo xamné ni lal nañu len bari nay auto yo xamné xam nañu len bari nay auto yo xamné aussi lak nañu len donc mu nek euh, situation bu bu xaw a wala bu yéeme sax lay wax ndax euh, partout ci biir réew mi fep fo dem rek manifestation yi mu ngi fay tambalé ndank ndank ñu ngi dégg léegi ca Louga benn kër yaay benn maire boo xamante ni lakk nañu ko. ñu ngi dégg aussi euh, ca Ndar ca université ba ñu ngi dégg aussi ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar d'ailleurs dem nañu foofu sax ba gis manifestation yi nga xam ne am na fa euh, ci benn euh, étudiant boo xam ne jàpp nañu ko mu tudd Ousmane Sonko nekk fac droit war a def suba examen loolu waraloon sax étudiants yi daal di taxaw tem ngir ñu libeere ko ba mu indi ay jaamaarloo yu méttee méttee foofu ca biir université ba ba tax na képp ku dégg ñu naan libéré Ousmane Sonko da ngay jàpp ne ah, Ousmane Sonko njiital Pastef moom la ñuy wax alors que Ousmane Sonko étudiant bu fac droit moom la ñu doon wax. donc mu nekk ay situation yoo xam ne tey ci biir réew mi fu ne xaw na fa gis nañ foofu aussi ca Liberté 6 ah, station Total ya fa nekk gis na nañu ko saccagé yàqate ko ba mu yàqatoo. Euh, gis nañ aussi Auchan yi nga xamné ni nii saccagé nañ ko super yi nga xamné mo nek ci biir station yi aussi la même chose donc mu nek euh, situation bu metté metté metté rawatina nak ci ñi nga xamné ñom ñoo dëkkee ci cité keur góor gi ndax li olof di wax rek euh ay du yem ci bop borom ndax gis nañ fi ay kër yu bari yo xamné ne boko xolé da ngay gis ne euh, toj nañu ko té ñoñu seen yoon nekku ci euh dëkk rek mom mo waral ñu mos ci gàllam na nañu seen yoon finalement dañ ko lakk ba ki nga xam ne mo moo doon lakk te sax ci ay source yu sûr euh dégg na mu ne arrêté na donc mu nekk ay situation yu métti metti côté force de l'ordre yi aussi gis nañ ci ay blessé parce que bâtiment bi tax bi ngeen di gis ni ci wétam fé nit ki di toll juste rek amna ben eh, force de l'ordre ben eh, policier bo xam fa lañu ko tousser ben brique eh, ba finalement mu mu mu kawo ba doon ko mujj jàpp dugal ko ci oto bi dal di koy yóbbu urgence ah, ci keur Ousmane Sonko bi aussi ñu ngi fi doon gis ay militants yo xamné ni nii nan ay blessures ba urgence médicale mom mo leen fi mo leen fi jëlee donc tay dal li ñu mëna wax en grosso modo ci réew mi ah, ci biir réew mi ak ah, ci bitim réew sax ndax gis nañ ay manifestations yu bari ci yenn ci consulat yi nga xamné ne ñoo nekk à l'extérieur mu nekk mbir moo xamanteni ni franchement euh, séntu woon nañu ko tey d' après déclaration bu président Ousmane Sonko njiital Pastef fi mu ne nag ñu ngi leen di taaxirlul di xool ba xam ana lan lañu ñu fiy jëlee diggante fii ak ba couvre-feu bi di tàmbali ndax nag bu ñu fàtte ne heure boobu heure heure heure heure bu baax bi la heure boobu daa war a fekk ñëpp fatu. ñu ngi toog rek di xaar ba xam lan lañu mën a am lan lañ fi mën a taataan ak lan moo fi mën a ruusandeegum en tout cas Baye Djily mu ngi noonee ci bunt ba président Ousmane Sonko aussi bu ngi ci biir euh, yenn leaders yi comme niñ leen ko waxee sànq ñu ngi ñëw di seet di delluwaat. loolu rek moom moo fi xew a xewagum pour l'instant yenn manifestation yi fi jotoon am aussi gis nañ ne fi mu toll nii lépp dakk na pour l'instant lépp yemb na ndax euh, manifestant yi euh, sympathisant yeeg euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fare ci kaw ko Sonko replié nañu ba delluwaat ci seen i kër force de l'ordre yi ñoom ñoo fi des ñoom ñoo occupé terrain bi pour l'instant ak yenn ci ay militants yoo xam ne ñu ngi ci buntu président Ousmane Sonko donc loolu mbokk yi mooy li nga xam ne pour l'instant loolu moo fi xew ñun ci ndum presse bi ñun ñoo nekk gum ci milieu yi ci lieu yi euh, à part à part à euh, force de l'ordre yi ñun ñoom ñoo fi nekk gum donc euh, ci kanam incha allah lu fi mën di ruus bu soobee yàlla dinañu fexe ba dëgtal leen ko ñu ngi fi ak yéen di xool ba xam lan mooy am gis ngeen lii moo nekk oto yi nga xamante ne nii lal nañu len fi gis ngeen auto bi ni dañ ko tek ci digg mbedd mi dal di koy tal donc li ni mel mom bari na fi tay lol lol lol lol lool yeneen yi bu ngeen xolé da ngeen di gis ne ñu ngi len mettre à l'écart mais liko waral sax du dara lu dul laal guñ len lal ba ñu ba ñu yàq seen kanam yàq carrément donc loolu mbokk yi ci kanam inshallah li ci mën di ruus rek bu soobee yalla nañ ci ñëwaat ak yeen ci ni mu gën a ngeen jëf mbokk yi jaar bi ngeen di ak ci wasari tv ci tan ngeureum ñal na len ba ci kanam inshallah jere ngeen jëf